gannaaw soxna Ndeye Fatou njaay dañoo jógee ci màggal gi ana kan ngay dalal tey ci seen émission sortie. sëñ Abdou Khoudoss Mbacke moom doom la ci sëñ Modou Fati Xari moom sëriñ Massamba. moom Abdou Khoudoss Mbacke ana fan la ganisee àdduna ak fan la dalee baax. juddoo Touba ba mata dem Daara jaaral ni ma fi jaarale ñëpp ci lañ ma yóbbu jàjji kër Matar Xari fa laa jàng alquran ci sëriñ Moustapha Sène. bi ma fa jàngee alxuraan ba mokkal euh, ñibbi si Touba ci lañ ma yóbbu ci daara sëñ Abibu Mbàkke ma jàng fa xam-xam ma jàng fi euh, ci yenn xam-xam fiq tawhid ak tasawuf ak xarut ak bayaan ba fa jógee dem Louga ci sëñ Sambay moo ma defal tafsirul Quran ma jàngee fa nag ci école Manarul Huda euh, bi ma fa jógee fa laa jàng def sama BFM ba ma fa jógee laa dem école Hanafiya bu nekk di fa liggéey ci fi ñuy wax Venezia ci Padova université Padova ma di jàng li ñuy wax euh, école de l'interprétation et de la langue école d'interprétation et traduction de la langue moom laa bi ma fa nekkee it euh, jóge naa fa dem Genève université Unimail gën faa xóotal branche boobu ma doon def. ana lan la jàng ci bitim réew. interprétation et traduction des langues maanaam arabe laa fa def ak français ak italien. moom nag gannaaw bu mu sàkku jee xam-xam ana kañ la ñibbisi Sénégal. man maa wax daal 2010 laa ñibbisi waat Sénégal. waaw ah. ba mu ñëwee nag toogul rekk ak ay loxo neen. Ah, bi ma ñëwee ci laa créé euh, sama société di yëngu ci wàllu boulangerie. Ah, moom nag dugg na ci langue politique bi ana fan la féete. waaw ci appel appel 221 man ci laa bokk bi nga xam ne Serigne Assane Mbacké mooy mooy président bi man ci laa bokk. lu tax mu taamu waaw politique day soxna si xam nga euh, c'est l'art de gérer ab dëkk boo fa nekkee di ab citoyen euh, war ngaa bokk ci ñiy saytu sam réew. noonu lay doxee. lu ko naqari ci réew mi. li ma gën a ragal ci àddina mooy xaalis xaalis daal euh, man bëgguma ku xaalis di jënd comme li ma faral di seetlu ci politiciens yu bari. ci wàllu xewlu li mu taamu mooy. ah suppu kànja suppu kànja suppu kànja daal bëgg naa ko rawat na dimanche waaw ah, suppu kànja daal ba dee dimanche moom bëgg naa ko lool ak ak cukkoom ah, ñaar yooyu daal. ndax nag déglu xasida Serigne Touba yi bokk na ci luy tooyal xolam. musique na xasaayit la ëpp lu may déglu xasaayit kon boog mbokk yi seen ganangook fas yéene wax ay dëgg yu bari ci seen émission sortie soxna Khadija Niang Mamy kaa ñu lay sant di la gërëm ci présentation boobule comme ni ngeen ko gisee mbokk yi xarit yi seetaan ak déglu dal leen ak jàmm ci seen émission sortie tey ji nag émission sortie ci dimanche ji di dalal comme ni ngeen ko gisee Serigne Abdou Khoudous Mbacké di coordonnateur mouvement appel 21 sëñ bi maa ngi lay nuyu. soxna Ndeye Fatou maa ngi lay fay. waa sëñ Abdou Khoudous nag dañuy toog ak yow pour waxtaan ne lépp lu aju si actualité bi semaine bi nag Touba Ila Touba bi ñu doon wax semaine passée tey ba léegi moo wéy ñu di ko waxtaanee ak événement Touba ak la fa jotee xew yépp ñu dooree ko nag ak bi ñuy def euh, cérémonie officielle bi ci màggal gi sëñ bi di xalif euh, général de Mourides Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké kaddu yi mu yëkki ci discours bi nga xam ne porte parole am yëkkati na ko ban jàngat nga may amal ci discours xalif général des Mourides ci édition màggal 2015 bi. jërëjëf Ndeye Fatou xanaa di ko <clears throat> rafetlu <clears throat> di ko rafet lu bu baax a baax a baax sa Sidi El Muxtaar yal na fi yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko Serigne Touba Cheikh Sidi ñun dañuy sant yàlla bu baax ci bi ñu yàlla dimbalee ñu am kilifa gu mel na moom ndax dëpp yàlla indee ko ci sunu kanam mu nekk Serigne Touba ba léegi ci li yàlla digle ak yonente bi ak ak alxuraan rek ci la tegu ci lay tegtaali bi rawatina nag. discours boobu nga xam ne bi nga xam ne def na ko ren jii nga xam ni lépp luy yàq ab société dindi na ko ci lépp luy defal ab société dugal na ko ci tàmbalee ko ci lii boole diine ji ndax sëriñ Touba bépp kilifa diine gu fi mos nekk mos naa am ak yow ak jaxasoo mos naa am ak yow ak rattaxoo kon Touba tey daa àgg foo xam ne sele bi yoonu diine ji la sele bi yoonu politique bi la waaye discours bi li ci nga xam ni moo ci moo ci am solo yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko mu yàgg ñoo jox ay ndigal ñu yàgg ko jëfe mooy li nga xam ni moom la euh, wax ne nañuy sax ci li neex yàlla ndax mu ñu fi indi fal xilmu ma ak sa xasiyat al alim fa man xalaa fa innahu jahilu mulim xam-xam bu nit am te xam-xam boobu bi jiwu ko jëmee ko ci ragal yàlla xam-xam boobu ci pertement rek la boroom jëm mhm. ba ca topp mhm. mooy boole diine ji ba ca topp mooy euh, wax lu jëm ci wàllu ger ñu moytu ko ndax ger dafa man a yàq aw askan te aw askan fii ak ger a nga ca feebar a nga ca wax ne nañ delluwaat ci liggéey ci liggéey boobu mu ne nañ dellu ci tool yi ndax dëkk boo dem mu am mu nekk en voie de agriculture la ñuy favoriser ci métier yëpp bu weesoo nag métier mi ngay def métier la ndax bu dul woon métier li may wax duñ ci duñ ci jot métier mi may def métier la ndax li may leeral bu ma ko deful woon du kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér te yàgg ñoo jox ay ndigal ñu di ko jëfe te yàlla defal ñu li ñuy wax samir naa wa ataana bañ mën a topp ci ginnaawam kam euh, na ko suñuy wayjur daan ko defee ak suñuy maam bi àndoon ak Serigne Touba. waaw mais boo ko méngaleeg at yi passé daan nañu gis discours yu mu doon def di woo surtout wàllu politique bi ñu ko doon xaaree ak beneen mbir muy terrorisme déggul mu àddu ci lu jëm ci politique doon na woo sax pouvoir opposition ñu dialogué waxtaan jéem fet nu ñu defaree réew mi yooyu mais waxul dara lu jëm ci loolu loolu ban gis-gis nga ci amal. xam nga <coughs> ah wax na ci politique. politique mooy woote na benn ñi jiite teg seen mbir ci yoon li leen constitution bi may institution yi may leen ko pour ñu gouverner ñoo topp loolu. waaye li nga xam ni constitution ba institution yi may na ko opposition bi ñu bàyyee leen ko loolu feeñ na ci discours bi man ci sama dégg-dégg wàllum terrorisme nag wax dëgg yàlla Touba soo leen ko tudd comme léeb ak lippoon nekkul ne xam nañ ko effectivement lu am la tallu ñu bañ la waaye dafa am lu contre contrecarré terrorisme mooy tariqa mag ñi bi ñu ñëwee Sénégal dañoo jël alxuraan tëgg alxuraan jël wóoru jël la ca baax yare ko Sénégalais yi Sénégalais am na diine loo ko mën a indi du du ko jël ndax fekk nga mu fees dell terrorisme fi mën a yaatu mooy ci population bu vide yeneen réew yi nga xam ne jàngaluñ leen amuñu li ñu am ñun lu mel na suñu mag ñi boo fa demee dana yomb loolu ndax loolu leen ñu jël ndax lay fekk ñu nekk ay ab peuple bu vide Sénégal nag ab peuple bu bu plein la bu fees dell boo xam ne dañ leen a mooñ ci diine yar leen ci ba koo gis muy dox muy murit ba muy tijaan muy xaadir ba muy laayal ba fees na dell mm-hmm. loolu yi nag moo waral boo leen di indil baatu terrorisme ndax man ka seetlu naa moom Macky Sall mi jiite réew moo fi waxoon ne sëriñ si ay citoyen ordinaire lañu. moom moomu ko waxoon ma wàññeekuwaat taxaw naan jërëjëf sëriñ Touba. c'est contraire waaw loolu kay dinañ ci ñëw ñëwu Macky Sall si Touba. waaw waaw loolu moom dinañ ci wax. kon nag Touba ñun. waaw li ñuy gën a naqari ci addina mooy ñàkk xam gi ñu nit ñàkk xam. sëñ Touba Touba aarasahu Allah la sëñ Touba wax Touba sëriñ Touba moo ko aaral boppam kon terrorisme daal. mënul mhm. dal mhm. ko an tajalahu daara tuqa wal xilmi wa diini wa daaral la kërub jàmm la su fa ñëwoon ku fa ñëwoon sa west sax ñu teral la mhm. Touba attraction bi muy créé suñu jegee ci suñu jubee màggal nag ndax gis nañu ne way politique yëpp dañuy daw te li Touba ndax loolu sens religieux bi màggal bi du am du ko xaw a écorné un ñoo ànd. Mm. xam nga boo waxee diine wax wax wax population boo waxee politique wax population ñoo ànd. Mm. population mooy déterminer lépp lépp loo bëgg a def ci àddina projet boo bëgg a teg boobu diine boobu àddinaa ci yem ak boobu politique masse humaine nga soxla rek nit ñi rek nga soxla pour man ko réaliser. Mm-hmm. sëñ Touba nag yàlla may yàllaa ko ko may jël mënees ba ba ko kenn wutiwut ba ko kenn xalaatut la ko yàlla ilham mu xam ko wuti wuti ko ci boromam yàlla may ko muy tubal maaruusa kon euh, li ci am solo mooy lu fa waaye di wuti nga wut ko ci yar ak teggin rek hmm. waaye nit man manees na fa am lu ne waaw ñu ñëw nag ci bi fa njiit réew mi di président Macky Sall ñëwee wax na ci ñu gis ko ci ay ci télé télévision national mu wax jërëjëfe Serigne Touba ñetti yoon kon kay kooku nag jébbalu na te it wane na yëfu taalibe xam nga day faat nit melut ni mu wax ni mu jëf la mel loo bëgg a wax foofu noonu. dinaa ci ñëw. gis nga doomu aadama saa yoo toogee yaakaar ni li ngay wax lépp doomu aadama yaa ngi koy gëm kemtalaay ni nga koy waxee doo nit. Mm. wala boo dee nit sa nit sa sa néewoo xam nga ci réew mi fii yéen ay journalistes ngeen leen ëpp bari fii gis nañ niñ campagne. Mm. baatub ndigal exposé nañ ko ci plateau yépp amul mënut a nekk ndax lii ndax laa ndax laa ndax laa. ndigal moom amatu fi ci élection bi de maanaam maanaam ba bu waxee baatum ndigal waxuma ko ci élection baatum ndigal man bi may wax mooy mu ndigal liñ am ñoom waaw te ba baatum ndigal it maanaam bu ñu koy wax itam yaakaar naa li tax ñu di ko wax ñëpp xam nañ ko wala la ëpp la ëpp ci nit xam nañ ko bokk baatum ndigal boobu biñ ko waxee wax ba élection yegg si fan la ñuy wax daal ne bañ bañ jëlee réew mi dañuy wax ne ay citoyen ordinaire képp la mhm. ñu daal di seetlu nag jàpp ay sëriñ di tëj mel na dafii daal bëgg nekk moot modd ñaari kaa laa fi amagum. ñaari cas. Mm-hmm. ñaari cas yooyu da nga yaakaar ne bu foofu la doon yem. cas yooyu daa am nag pro ay verbal maanaam ay yoo xam ne daa am mel ne front ñu jiitu ñoo xam ñoo yor lam yi di wax. Mm-hmm. bu ko defee fu ñu wax ba mu nooy rek ñu daal di ñëw jëfee loola loolu moo doon pexe bi mm-hmm. waaw. bu fekkee yow mi waxoon ay citoyen ordinaire lañ yaa dem a dem ba yàlla nattu la nga ni ja nga ni jaar ci lu gën a garaaw foofu muy terrorisme. tam wóor leen terrorisme benn barrage képp la am mooy tariqa yi foo jaar na jërëjëf sëñ Touba de waaye dafa yeex hmm, kon terrorisme yi moo waral jërëjëf ah. sëñ Touba bi da nga déggaat leneen de mu la ah waaw da nga dégg lépp sëñ Touba da nga ko déggaat ca kaw a kaw a hmm. Hmm. ko may la amoon nag ci incident yu biñ ne sëñ mun Muntaxa Basiru Mbàkke dafa ñëw pour julli ji ñu cortège ju wala sax euh, sécurité bi dal di côtier moom nag joyanti na wax ji wax ni seytaane bu ndaw la mais xaju fa daal jéggale na teyit euh, gisul ne am na lenn luñ ko gàllankoor ba mu mun a julli si yow ban yëgee nga ci amal sëriñ taxa Mbàkke ba sunu sunu sëriñ sunu mag ndax noonu la mbokk gi tëdde waaye nag sama sëriñ la sëriñ la am ci moom cofeel gu rëy fonk lool bëgg ko lool suñ demee ba xew-xew yooyu xew Touba am moom sëñ Muntaxa lim doon rek la def sëñ Muntaxa bu fekkee lu baax da koy gën a baaxal bu fekkee loo xamante ni yiw niw ci wala rafetul da koy da koy da koy rafetal ndax loolu la doon sëñ Muntaxa sëriñ Basirum sëñ Touba ku ñëw ci baax la juddu ci la yaru ci la màgg moom la doon baax rek lay def sëñ Muntaxa du nekk au rendez ci leneen lu baax kon defar te Touba du nekk mukk fu ay ay ay convergence départ convergence ay wuute du du Touba Touba taxawewul noonu ko ci ko xam Touba kon li mu wax loolu noonu dong la mën a waxee te loolu rek dañ doon xaar ci moom dafa des kay li ma ko wax mooy si les faits n'étaient pas avérés bu fekkoon jëf yi amul lu fa Macky Sall di wuti bay tuub riirum téye nañ dëpp nañ sëriñ bi rek dëpp ga am na image yu jiitu yoo xam ne murit yépp jot nañ ci hmm. ginnaaw bi lañ ko génnee ci internet bi waaye nag li sëñ bi wax képp la ñuy mën a jàpp ndax ñun ay murit lañ waaye naqari na noonu naqari na murit yëpp te war na noo xoolaat suñu bopp te jëlaat suñu responsabilité ci suñu Tuubaa bi ndax moom la ñu am. yan responsabilité nga bëgg a wax foofu noonu ci laay jëm mhm. sëriñ Muntaxa mhm. ak ak mbaax ak yar ak taalibe ak bëgg sëriñ Tuubaa ak tegu ci yoon tañ cay teg lañ xam ci moom mu toll ñu fu kenn xamut na fu kenn mënta lijjanti bi xew-xew bi amee ñu dellu fa ne day dañuy tuub ndax lii nangam nangam bu jëf ji ba léegi loolu lépp la ko waral mooy mm-hmm. nan la nit di ñëwee ci dëkk nekk buur nekk gan nekk bu ne yeewi bay <laughs> Macky Sall du gan ndax mooy ganu président gu Touba njëkk am déedéet ñoom Senghor bu ñu ma saana ñëw daawuñu du ko ci garde rapproché wu Touba mm. Abdou Diouf daawu ko def am Abdoulaye Wade daw ko def waaye léegi lan moo tax mu ñëw Touba fekk Touba am garde rapprochée muy xitma bii garde màggal Touba bi mu ñëw ne dëkkit loolu sànni indi moom garde rapprochée wu boppam boo xam ne xamul d'ailleurs liñ leen di wax ne leen yéen ak seen seen population bi nii ngeen def na yàlla ak yàlli feeñ ndax xamuñu sëñ Muntaxa ah, waaye dañ ko xàmmeewul mais loolu mais écoute soxna si xam nga lan la gis nga mag mu ne mag nga gis nga ñoom bu ñu tëddee seen i njegenaay ba pare li ñu def lépp xam nañ ko du fu ñu jëlee jàpp leen. Sëriñ Mountakha Bassirou nag yal nañu yàlla di taas seen te di ñu dimbali ci seen wax ñoom ñu di ko dégg seen wax dafa diis neexut a dégg gis nga tontu bi wallaay musiba la ci ñoom. mooy li mu wax ne seytaan li ma seen bu ma xuusul musiba ah, moom laa bëgg a xam de man. loolu de moo jaaxal bu li ma seen. waaw yàlla xamal na ni ma ma seen. Mhm. bu ma xuusoon de fit na la indi. Mhm. ci biir Touba. waaw sëriñ sëpp nga teg ay masque sëriñ bu ñëw nga sumit garabu ba mu palpe teg radar ci biir Touba Maarousa. jamonoy terrorisme la ah, ne ah, terrorisme déggoo man la France barki dem bi ñuy attaqué France. Mhm. Paris la ma fekk Versailles. Mhm. dégg nga. fan lañ terroriste yi njëkk a explosé ci stade bi président bi toog. te boo seetloo ni explosé Paris da nga xam ne jóguñu pour rey ay ay signal la. mooy fu jekku nañ leen ko saa yi ko soxlaa. mooy mën nañoo toj fii toj fee toj fee cest à seen service c'est que seen renseignement généraux yi li ñuy joxe du dara waaye ndegam France tawut ñooñu sàkkantumaak Sénégal gu Sénégal gi nga xamante ne moo waral nag dispositif dispositif yooyu bi ci jiitu mooy ak tàkkatoo ak kilifay diine yi ndax diine mënoo ko àtte te xamoo nit du àtte lu mu xamul mm-hmm. jànguñu diine nañ ko nangu nañ dellu ci ñoñ diine ñi waxtaan na ñoom ci diine ñu wax ñu ànd ak ñoom dimbali leen ci yoon bu mën a jaar ba xeex mais pas seen diplôme yii ak seen yii ñu bëgg teg bu ñu ko bëggee dañuy lajj mm-hmm. te looloo tàmbali ci réew kon ban jiyee moo waroon am bu fekkee ne euh, sëñ mun Muntaxa dafa ah, xuutoon bëgg kooku day xaw ma ko de wax dëgg fa yàlla de sama xel nag daj na lu waaye xam ak taalibe léegi sax ngay takk sama xel ndax taalibe warut a xalaat xalaat yu bari <laughs> taalibe warut a xalaat taalibe war daal sami naa waxtaan naa topp ci ginnaaw ndigal daal bi sëñ bi waxee daal ci la ci la sedd guy mm, waaye nag bu waxut woon doon neex ndayam de <laughs> ñuy fàttali suñu auditeurs ak téléspectateurs ni seen émission sotti la ñuy suivre sëñ Abdou Khoudoss Mbacké di coordonnateur mouvement appel 21 mooy suñu invité appel 21 moom lu muy tekki. appel 221. ah 221 euh, ah 221 waaw alliance pour le patriotisme l'éthique et la liberté. 221 221 bi mooy euh, tëj maanaam diaspora bi comme buñ tukkee téléphone bi rek ay seen jaaruwaay ngir wax ak réew mi te booy woote 00 221 ngay def. ñu ñu ñu ñu leen ni seen seen seen wàll ngi ci bu ko defee communication bi mën di jàll. Hmm. nan ngeen ci jublu ba tuddee seen bopp mouvement bi noonu. li ci jublu mooy. Hmm. seetlu Touba ne daal force politique dafa fa nekk bépp. boo demee Casamance député yi fa ne ña ngay waxal waa Casamance boo demee Thiès député yi fa ne ña ngay waxal waa Thiès Touba rek la député yi nekk di xas waa Touba. ah xanaa. Touba rek laa seen doomu bàjjen Cissé loo ngay waxal. Euh, déedéet koo tudd tudd kooku moom yàlla kooku du ma ko tudd du débat bi bu euh, yàq débat bi débat bi jaar na yoon trop fi mu toll nii ñu ngi ci yoon bu baax a baax. Moustapha da koo jërut ma ni jàllal. am na ñoo xam ne bu tuubaa boobu. da koo da koo jërut da koo jërut ma ni bu yàq débat bi jàllal jàllal. kon ma bàyyi la nga wéyal. ci député yi. bu ñëwee. ab hmm. bu doolee tuubaa ba Touba. abal leen dooleem mm-hmm. ñu wañeeku ñëw jaawale noppik sëriñ si ak ragal bu sëriñ si ne cell ñu ne ñoom jànguñu fekk sëriñ si jàng nañ li li li ñu war a jàng lépp au niveau national au niveau international ba jël sëriñ Tuubaa fa Sénégal amul ambassade mm. Finlande dama koy wax souvent Norvège Danemark Suède kër sëriñ Tuubaa yaa nga ci digg dëkk ba murit yaa ngay sikkar Sénégal amul fa ambassade mm. ku ko géré ko dul ñun force bu sëñ Touba ki du ki du jullit sax mën na koo jëfandikoo ba defal ci boppam waxuma la ko jullit soo dee ba noppi di ko naatable nag kooku kooku ak réer mënu ko weesu li ko yëkkati mooy askan wi Touba dëkk nit ku ne dëkk ba nga dëkk war ngaa saytu setu dëkk ba ak baaxu dëkk ba ak ak ak santé waa dëkk ba sa kemtalaayu katam ah loolu président Macky Sall ñëw na kat saafaraal leen ko dig na leen hôpital 200 lits. il a Touba bi léegi nga wax de. dig nga wax dig nga wax de Ila Touba danañ ci ñëw de defal ndànk de mbir mi defal ndànk bala ngaa ñëw di wax ab hôpital mën lëgul foofu sëy ni bee nga xamante ne Ablaye Wade da ko fa defoon mu dégradé wu faj am faj amu fa garab amu fa dara amu fa yëpp koo jàmbat tey jii ma ci défi ki moom laajal sëy nekk Touba yëpp seen jafe-jafe mooy lan jafe-jafe wu faj mm. parce que lu la wax dix dix milliards jëru ko na na la indil trois milliards rek jëndi garab yu ko fa ana ana wutul machine jalis Touba cardiovasculaire dafa bari dañuy naan kafe gu bari dafa tàng ku ma feebare ñu indi Dakar mu faj na saafara loolu ba pare doo ko digg hôpital te digg yi dañ ciy bëgg a sonn dañuy bëgg a sonn ci dafa di woototo waaw mën naa bi yoon dinañ ko jëfe balaa balaa 2017 da ngaa fàtte yoonu yokkute waaw léegi ñu ngi ci PSE dé da am na boo tëb acte 3 de la décentralisation mor ne mor ne benn maire benn maire bu mën a xëyee te fayati sab adjoint maire wala la topp ñum amul ci li gën a garaaw sax dañ ne maire bi la ñuy fay adjoint maire bi ak benn secrétaire ñetti secrétaire dañ ko dagg sànni maire bi koy fayal boppam waaye léegi boo defee loolu Khalifa Sall hmm. yi ci àll bi moom tubaarkàlla ku ci faj say soxla sëriñ Touba nga dem gis sëñ bi daanaka ah sëñ bi moo leen di jàppale déedéet sëñ Touba moom ab daw làqu la ni ngay dawee làqu ma daw làqu noonu la maire yi ku xam foo jëm ci sëñ bi nga jëm de loolu mooy dëgg de moo tax ñu war a xam lu sëñ bi ci dëkk bi Mhm. mais Ila Touba bi nag wax dëgg yàlla. Ila Touba ko doos nag wax dëgg yàlla. gënal la ci Ila Touba dafa am lu ma ci bëgg a leeral ba xam nga soxna Ndeye Fatou xam euh, euh, saa yu ñuy wax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa wa maa kunnaa li xaybi haafiziin borom xam-xam yi dañ koy wax waaye dañuy fàtte wasalil xariya allati kunna fiiha wal hiira allati aqbalnaa waaye yooyu dafa am solo ñu ko ciy dolli gis nga Ila Touba ji fii Touba du ko gën ci ñun Ila Touba mm. mooy 2A lu jóge Touba lu jëm Touba waaw autoroute bi 400 milliards la ñu waxoon ni moom la. dinañ ci ñëw. 87 milliards dolli ko na yoo xam léeral la bu ñu ba léegi luñ ko ci dollee suuf si mu a jaar ñu war a dédommagé baadoolo yi borom tool yi. ñaata yo ñaata ñaata coow nga ci déggoon te tàmbalee wuñ maa la ko wax fi ubbil say nopp. Ah, bu ci kanamee dina réglé wu bu ci bu ci bu ci loolu dolli ko. Ila Touba boo xamante ni yow biir dëkk ba. ci d'ailleurs loolu bokk na ci lii kat appel 221. mooy fii Touba ji ma la wax mooy dëkk bu toll na Touba 3 millions d' habitants ñoo fa ne dëkk bi yëpp ay fosse septique la ça veut dire que lépp o usée bi ñuy génne ci salte gi lépp mi ngi ci 2 mètres de profondeur lañ ko denc ay fosse septique foofu dëkk bi teg ko ci kaw. Ah, lan moo ñu tee def ay évacuation def ay bassin de rotation benn ginnaaw Mbàkke ci tool yi Sëñ Omar yi def benn ginnaaw Daaru Karim def benn ginnaaw Ndindi def benn ginnaaw Touba Fall eau usée yooyu. ñu di ko togg di ci génne ndox minéral mu neex waa dëkk bi di ko naan ndox ma meneen deuxième qualité wu ndox ba ñu arrosé ci tool yi troisième ba di di di di di di engrais di di di fertiliser ñu def ko ay toche def ko ci tool yi bay bay bay tool yi. Mm-hmm. pourtant usine bi koy recycler ça tourne autour de trois moins de trois milliards de francs CFA lii ma la wax nekk. ah benn waaw. ñaareel. Mm-hmm. boo ñëwee ci wàllu santé bii ñuy wax. hôpitalu Touba mooy hôpital boo xamante ni murid yaa ko fa def moo gën a waroon gën a yomb ci hôpital yi ci sous-région bi mooy hôpital bi gën a cher ci manque ay faj ak manque nangam ak manque nangam ak manque nangam lo lii ma la wax programme bii ma la wax mhm. su fekkente ni li koy def sa moyen de 3 milliards de francs CFA voire 4 milliards moyen de 4 milliards nga bëgg ni ma Touba def naa fa 21 milliards ku ko gis fan lañ ko def alors nañ ñu dimbali <laughs> quand même quand même nañ ñu dimbali dama bëgg je défie quiconque ku dëkk Touba sant Mbàkke ak ku ak ku taalibe fan lañ ko gas 21 milliards yi. fu mu dugg. mu dañ ko taal. ci ban meer ah xëy na taal de moom mën naa dañ koo def moom. taal taal moom mën na nekk. ah mais man bu dee taal daal appel 221 gisut ndax appel 221 moom loolu lay xeex. appel 221 kan moo ko jiite. sëñ Assane Mbacke moo ne ci bopp bi mooy président bi. sëñ Assane Mbacke ana moom moom dafa mel ni ba ñu ko jëlee ca. ndumb siin googu noonu mu nekkoon ba léegi de dafa dugg ci néegu xalwa déedéet eh, sëñ Assane daa doxi soxlaam sëñ Assane kay xam nga bi ñu ko téyee dañ ñu ko woon bul wax mu génn wax xam nga soxna Ndeye Fatou nit ñi boo leen bëggee jub boo nit ñi boo leen bëggee jubanti dangay jub mm. boo leen bëggee yar da ngay yar régime bii seen yuuxu yu bari yii mm. nga bëgg ne da ngay yar doomu aadama yi ko def da ngay nax sa bopp ah, waaye Assane Mbacke ba mu génnee ci kaso bii ñu ne dana dem APR ñu demuñu de bokkuñu ñun lu ne yónnee nañu ko nag ma wax ko Sénégal yëpp ñuy dem. waa APR. jéem nañ lu ne. ñu lànk. comme yan ndax ñoo wax ne ay maître centre lañ xaalis dong la ñuy wut. Seydina Fall député honorable wax nañ ko ko tey ndax yónnee nañu xaalis ñu delloo ko. Seydina Fall député. ah yónnee APR la yónnee nañu xaalis bu dul jeex de. ah ni ñu leen bokk si ci ñun ñu lànk. ñaata. Ah. cent mille wala 200000 wala. ma ma naa leen ko dimbalee. non wax ñu fi mooy wal fajri lépp waaw waaw lépp waaye naa leen ko dimbalee waaye daal yónnee nañu xaalis bu bare bare bare ñu delloo leen ko sëñ Assane Mbacke moom yi ñu tëyoon ne ko boo génnee bul wax mm-hmm. wax naa ko ci wax naa leen ko ci ci ngeen leen nit boo ko téyewut ci yoon boo ko bëgg ah xam ñoom xamuñu Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke mm. fépp ci suñu deret la ne sëñ Tuubaa ko def ci ñun bu ñu ko téyewul ci yoon bu ñu ne ko noppil mu noppi waaye dañ ko téyewut ci yoon moo ta bañ ko noppiloo ba mu wax na nee nañ ko bul tukki tukki na la moo sax màggale am na ci ndigal woy juróom secrétaire fay lu màggali la màgga màgga ka verde ko yóbbu màggal jeexee mouvement bi jaata nit la wala loolu amul membre fondateur membre yi ngay wax wala bi ngay wax ni appel 221 maanaam maa ngi koy door moom yëguma woon sax ni Sénégal am na fi mouvement bu ñuy wuyu wooyee appel 221 mouvement appel 221 dañ dul liggéey liggéeyu kaw xam nga Sénégal moom boo liggéey liggéeyu xaalis rek ñun liggéey bi ñuy liggéey peuple bi lañ population Touba dama la doon wax ne la Touba ci euh, yiñ fa war euh, maanaam yi nga xam ne ñun ñun ñun mën nañ ko ñun ñun war nañ Touba 3 millions d' habitants la. Hmm. Tëngéej 10 000 d' la 100 000 euh, baal ma hmm. d' habitants. électorat wu Touba ak boobu Tëngéej ñoo tolloo. waaw loolu rek ngeen ñu wax ba paree nag. seen am baal maa gale boobu ci seen bopp. Hmm. soxna day faatu. ki xam fas alu ala zikri in kuntum laa ta'lamuun ki xam ak xam la moom moom devoiram la moom mu yee ki xamul. day ñoom dañoo bàyyi seen i kër ndey seen i kër bàyyi wuyu sëriñ ndax dëkku daw làqu la. waaw mais sëñ bi ñun li ñu jaaxal mooy ba ñëwee fekk ñu fa mhm. ñun dañ leen a war a teg leen ci yoon jàngal leen wan leen lan mooy citoyenneté. waa léegi ñun li ñu jaaxal mooy Touba rek nekk fi tamit. ma waxati ko. déet maanaam ñun ñun Tiwaawoon nañ fi appel 221 boo seetloo fi may waxee kaw la gën fi appel 221 Medina Gunaas non déglu ma rek ma ñëw ma ñëw donc Touba rek fi waaye ñun pourquoi jeune marabout bu ñu dégg rek ci wàllu politique lu ca bëri ci Touba lay jógee nga boo demee tey ba Niassène Guèye wax dëgg yàlla nga fa sëñ Mamoun loolu waxu waxu waxu waa APR slogan la loolu yow maa ci bokk slogan waa APR la rek sëñ Mamoun xam nga ko boo demee Tiwaawoon Guèye sëñ bi député bi xanaa sëñ bi si bokk xanaa du ko sëñ Asmalis ko c'est l'art de gérer bu ñuy wax l'art de gérer kan moo ci mieux placé que sëriñ bi nga xam du vie vie sociale la ñoom kay ñoo bëgg sëriñ si toog nee di leen seetaan ñu jël xaalis bépp sàcc ko jub ci nekk yi ay nduxum sëriñ bu ni bërit ñu la laa sëriñ bi addiyee nga ne nii loolu bokkuñu ci na loolu leer mm-hmm. déedéet kon nekku leen ay maître chanteur comme ñoom ni ñu koy waxee li ñuy war a am am na suñu ñàq bii lañ yaakaar d'abord mm-hmm. as gor bala ngaa mën a défendre benn benn mbir da ngay yaakaar sa bopp ba pare da ngay yaakaar saw ñàq ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laataa mu mën a jàllale message bi ko yàlla yónni dafa aju ci boppam ba pare as góor bu ajuwul ci boppam mënut a défendre leen yéen bi sëñ Assane Mbacke génnee ci kaso bi ngeen dem gis gisi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke dana leen dem leen bay ji ci tool yi dem jàngale ji ci daara yi te bàyyi politique bi yal na fi yàgg yal na fi yàgg te wér hmm. Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar euh, yal na fi yàgg kilifa gu mat kilifa waaw wax yoo xam ne boo déggee yow day faatu ñun la lii Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar a ko wax. Hmm. war ngaa xam xam wax dëgg yàlla Cheikh Sidil Muxtaar ci yërmande ja. Hmm. ca mbaax ga. nga xam ne bu ñu gisee du ñu gëmee ndax sët. xam nga ka wax wax ja ka jël ay wax ngir bëgg. ah lañ wax ci presse ka wax ka wax ay waxam lu neex pale bii la ko ca fekk ñëpp jot nañ ci. Cheikh Sidil Muxtaar bëgguma koo tudd ndax mu aw turam wala su ko ci ay politique ëpp na lool Sëñ Touba la ci ñun nañ ko bàyyi noonu tamit ko siyaar. man moom bu ma ko mënee am moo ma gënal. Ah. sabab am na wala amul moo leen wax loolu wala waxu leen loolu. la xanaa yow ci sa bopp. Mm. wax dëgg fa yàlla lu jóge ci làmmi yu xalif général bi Seex si war nga koo xam. nga fu ñoom luy jóge seen làmmi lii xew ci làmmi yu Sëñ Muntaxa nit def li muy def wenn nga ñëpp xam ne yaa ko def ma ñëw laa déedéet nag dañ la koo juñ waaye defoo ko noonu la sang di def sang sëñ bay jaxat ne sangay ka sangi moroomam tey jubal ak a jub nekkal bi ab sang yow ma yu mbaate ngay waayam ñooñu ay sang lañ waaw <laughs> seen mouvement bi yemu leen foofu parce que yéen it dañ leen di gis toujours ngeen di ànd ak waa PDS donc est-ce que du yéen PDS moo leen ngébb ngeen jóg pour song pouvoir bi PDS gémbuñu ñun dafa am lu ñu séq ak Ablaye Wade loo xam ni pas-pas la Ablaye Wade nekkatul au pouvoir xanaa kuy wut kuy wut kay xanaa ànd ak pouvoir ci ngay gën war a gën a amee gaaw a amee li ngay wut Ablaye Wade moom nekkatu fi doomam jenn doom la amoon tuumaal ne tëj nañ ko kaso bi nañu bàyyee xel nag ki dugal léppam ci biir moom jenn doom la amoon ko tëj nag seen lépp ngi ci biir nañ ko bàyyee xel la lañ jàppe Ablaye Wade nag loo foofu nga may ma rek loo bëgg a wax foofu waaw ah, waaw dangaa laaj ma àggale nga doog a ñëw dama ni dama ni <laughs> waaw Ablaye Wade jenn doom la am muy Abdou Karim Wade waaw ñu tuumaal ko lu kenn mënta teg ba fi may wax ak yow ne teg doo dégg ku ne la lim sàcc ngeen ne doo ko dégg doo ko mos a dégg ci këru àddina créé bañ ko tëjee woon tey jii moom bi ba Bourgi moom lañ bëgg a wax dañ koy réformer de waa soxna si mm-hmm. doy na war que ñoom ñi ngi xalaat Abdoulaye Wade moomu nag bëgg suñu sëriñ bi muy sëriñ Touba Xaadim Rasuul mi amul moom bëggal na suñu kilifa ak dëkk bi bëggal ñu Tiwaawan nag Njaasaan ak fépp bëggal ñu diine ñun pas-pas boobee moo nu booleeg moom ñu bokk ak ñoom ay gis-gis bokk mu ñoom opposition bi te it gis injustice buñ jël teg ko ci kawam teg ko ci kaw doomam ngir ay lobby yu ne seen ginnaaw di leen puus ngir soof gu leen Abdoulaye ab soof ngir bëggum bëggoon Sëñ Tuubaa seenu gàtt xam-xam ñoom tax ñu ànd ak lobby yooyee ànd ak ay quelques personnes yoo xam ñoo ko war a dimbali ma Macky Sall ci Touba tax Macky xamul ci Touba daal. ab la. écoute-moi bien. bëgg dem la nit melut ni mu wax ni mu wax day faatu. Hmm. bu ma toogoon ni la may nangam waaw ndax li ndax wax nit melut wax ni mu la même sëñ Abdoulaye Mbacke suñu kilifa gu baax nga néew nit boo xoolee waxi tey ma jëf mooy benn waaye loolu koo xam ne loo wax lii mu wax nii balaa ginnaaw suuf mu wax leneen. président. bis bu yàlla sàkk dama ni la burxa yi bi mu koy wax ci mairie bi ko seexal lem mu taw ko karawaatam ne waaw burxa yi du ko nangu aujourd'hui alal ñu dem Mali ñoo wax ko mu ne waxuma ko soo ministre de l'Intérieur daan dañ koy dugal léegi léegi ñu voté ko parce que loolu bu xëy nanga nang xam nga panique yal nañu yàlla musal ci négativité nit boo négativé tu dégages des ondes négative nit il faut l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a de lui-même nit bala nga kilifa day dal kilifa day dal kilifa biiram day am jàmm bu ko defee jàmm jooju man a yaatu ba dem ci sa sa sa sa njaboot waaye lii si euh, Idriss Seck wax ba ki dem wax dëgg la de. Hmm. yuux rek garde reproché yi waay man ba kañ. <laughs> ba si sa loore. mais quand même nag nag daal ko soo dégg eh, ba ma ba yàq sama appétit nag quand même maa ngi woon ci luy tabaxub république bu ma bu ma bu ma bu ma reculé quand même bëgguma loolu. maa ngi bàyyi ma ay façon nit man xaw ma man ñi ngay wax noonu vraiment. Hmm. sama temps ëpp na loolu man maa ngi feneen. yaa ngi feneen kon ñu dem feneen. barki démb. Hmm. laa jógee Genève. waaw. rencontre naa FIDH fédération des internationales de ligue de défense de droits de l'homme gis naa waa raadu gis naa waa am na international bu Genève bët bi ñuy xool Sénégal baaxul de ban bët lañ ñuy xoolee xanaa acquis démocratique yu ñu yu ñu piétiné reculade bu garaw suñ démocratie dematu yooyu lu mat a bàyyee xel la loolu moo tax appel 221 jóg pour informer doomu aadama yi jëlee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer def li ñu xam ne waaw ñaata carte membre ngeen jaay après 221. 221 soxna dama ni liñ jii ci ay carte de membre. waaw. ëpp nañ ci lu plus de cinquante mille et quelque. loolu rek lañ may wax suñ toogee rek. di ah da nga ko soxla da ko soxla ci écran mën naa la ko tegal moom kay mën naa laa génne li xamul problème bi loolu li am solo mooy. Mhm. Sénégalais yi seen bopp ñoo néewatu ci ay caaxaan Sénégalais yi dofatuñ gis nga Sénégalais yi ngay gis nii ñi ëpp politique ñu ngi seen i kër toog Sénégalais yi lekk lañ wax ak naan ak jàng ak feebar faju c'est le minimum lii lañ am ba noppi ñu bëgg ñu koo euh, teg ci ay ay digaate kese yoonu yokkute mm-hmm. loolu mu waxoon nañ ko mais nga may ma ma fàttali suñu auditeur ak téléspectateur ni sot la ñuy suivre ñu ñëw nag ci question d'actualité yi wax nga ko sànq réforme yi nga xam ne bëgg nañ ko def ci justice bi waaye nag Sidiki Kaba nee na yooyu bu ñu koy def rawatina ci cré yi duñu laal loo xam ne cour suprême dëggal na ko ci àtte mais boo xoolee loolu ban jàngat nga ci amal mais boo xoolee mooy li ma la wax rek soxna si mhm. dafa munta nekk nga jël doomu jàmbur tuumaal ko sept cent milliards ba tey jii génnewoo un milliard tëj ko ci kër yi moom ak ginnaaw jaboot gi ak cuuj yi bul fàttali ne dañu bibu bur si ñu bi kenn amul dara lépp la ñu wax ne Karim ak moom mm-hmm. waaye ba léegi moo ko moom dara génn ñu jël Abdou Karim Wade ne ko ci ràpp ci kaso bi tëj ko ba noppee léegi institution bi ko tëj mooy créé dañ koy réformer soxna day faat loolu la xel na dañu bala nga àgg ci fee nga waaw ay tànki kanam yi ñuy dox la rek. tànki kanam yi lan. bam la wóoree ni dañ koy réformer baaxul. ak yoon may na la xoolal nga téye passeport am ba ko ci dëkk bi réformer ba pare doo ko tëj. yoon yoon may na la nga téye passeport am bàyyi ci biir dëkk bi. réformer ba xam ni institution bii ngay àtte institution bu jaar yoon la bu tëjee dara luñ koy waxaat dëppwut ak ay ay ay normes mais loolu war nañ ko wax mhm, ñu wax na ci ARMP seen euh, rapport bi ñu fësal jëmee ko ci wàllu gerbe euh, yorinu këru liggéeykaay rawatina ci société yi ñu gis yi daal ay teqatal yu bari yoo rapport bi mu ngi waroon a génn le 10 novembre mhm. xam li ci ne moo tax ñu koy mës-mësal ba tey ji may wax ak ñëwuñ ko woon a génne forum civil la yuuxu ñu doo koo génne biñ ko génnee li xew ci hôpitaux yi tey dégg ko ah day na waar lu xew Thiès lu xew Louga Hmm, Thiès dafa lay dina. lii bu loolu weesoo. ARMP dama lay ba bëgg ñu leeralal ñu li ma lay bëgg a wax 87 milliards yi dolli ko ci Ila Touba ji fu mu dugg bokkul woon ci contrat bi ñu waxoon. Ablaye Wade bi muy jógee fii. Hmm. ci pale bii. lam fa bàyyi woon mu muy ak payoor muy caisse noire googee dolli nañ ci lu mat 2 milliards nañu leeral loolu fu muy dugg. ambassade éternel yi Ablaye Wade 2 la ci amoon Macky mi ci 20. conseils spéciaux. Abdoulaye Wade mi ngi ci amoon onze Macky mi ngi ci trente de plus même koo ci dégg ban ambassadeur italien nga dégg ñun la biir marché la négocier au niveau international relation lii la dox lii la indil Sénégal dara kenn déggatoo ci kenn ñun ñëpp ñu ngi seen i code. ah pourtant train ah, de vie de l'état ñu ngi koy wàññi. mais nan nga koy wàññi di ko yokk dama ni la biir palais barki démb. 3 mm. milliards yee ñu yokk ca ca ca ca masse salariale sa palais fu mu dugg parce que charge bi moo bari te ñooñu ñu koy fayee ñëpp liggéeyaluñ Sénégal dara loolu moom la moom moom la war a leeral Séné Sénégalais yi wa ñu war a wax lu jëm ci ñu war ñoo leeralal lu jëm ci ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal 500 milliards dem nañ ci yoon ba ArcelorMittal war a fay Sénégal milliards yu leer naa nga xam ne jëli indi ci des. mais ministre de l'économie et des finances nag indi woon na ci ay explications nag. mais ban explication ban explication boo xam ne da ngaa teg yu leer nañ moom la ñu wax 250 milliards yu leer nañ nga dem jëli fa moyen de milliards mais leeral la ñu 400 400 milliards yi fu mu dugg. aéroport euh, euh, euh, Blaise Diagne international Blaise Diagne. Hmm. Bin Euh, dolli nañ leen 30 pour cent ci ci ci ci ci ci ci somme bi nga xam ne moom lañ moom lañu diggaale woon ak ñoom ci aéroport bi 30 pour cent yooyu du ñu leeral lum 10 pour cent wu euh, Aliou Sall yi ci euh, nu mu tuddati Petrotim bañ ko dalee laaj ba léegi kañ la ndax dégg gis nga soxna day faatu mais sëñ Abdou Khoudoss boobu moom bu ko laaj ndax Ablaye Wade fii la fii laajte woon loolu joxe dale 3 jours te fi mu toll nii waxuma la 3 jours waaye ñu ngi ci 1000 jours wala 1000 et quelques jours. dafa dafa faatu ci délai ba ndey faatu. kon boobu yéen a ko opposition ñoo ko njëkk a dugal waaye ñoo ci njëkk a génn ndey faatu. gis nga Ablaye Wade. Hmm. dama ko bëgg dama leen bëgg wax Sénégal yi Ablaye Wade sama papa la sama xarit la. bi mu nekkee au régime est-ce que xam nga musuma askanu Sénégal bépp a ngi may dégg man ndey faatu lu mu lakk mburu xaw ko. Hmm. sama ñàq wi rek Ablaye bi mu nekkee au gisuma moo Karim Wade musuñu maa teg bët musuma dugg seeni bureau man injustice moo a tax di xeex gis nga day faatu ku wor ren ba déwén mu jig la dañ la koo jiñ du yow. ko kan la kan moo wor fii. ki wor day. Hmm. mooy kiñ defal lépp ki Ablaye Wade defal lépp mu ñëw jël benn institution ngir tëj doomi Ablaye Wade képp te ba nga ko tëjee ba léegi fasu ci yéen a tëj keneen ñu di ko ñaanit ne ko passeport yi jàmbur yi CEDEAO gii bët ki dem la dem fee di di wax di layan eh, Burkina ba mu fa demet la mu fa dégg yow CEDEAO ne la bàyyil nga la nga lànk ba noppi dem naa CEDEAO ne ñu mais yow xanaa bala nga naan naam ne fa yow li CEDEAO digal defoo ko ba noppi dañu digal yooyu kilifa da koy moytu mm-hmm. ma ñëw nag leen Ablaye Wade moom mu ngay wax dafa am lu lu ko gënal si Ablaye Wade Sénégal ko gënal Karim mm-hmm. Ablaye Wade Sénégal ko gënal gis nga nit ñi yaakaar ni Ablaye gis nga euh, Ablaye Wade bàyyi Karim Wade ko tëj euh, fii ci kaso bi da koo tee arrivé bi yàlla dogalee yàlla mooy joxe mm-hmm. Karim fu mu war a àgg dina na xam nga lu muy bañ ku ñëw cinq millions de personnes teeru la ah te bi nga demee nit ñi gën a mer gën a xiif gën a sonn ah soo dee si waatee. Eh, waaye bar barki dem boo Ndiaye ba PDS wootee moom lañ fa la fa nekk ci nit mën nañ leen wàññi ci baaraam kon nag loolu moom mobilisation moom du du record lañ koy euh, tabbee ci waa PDS ku jëkk politique bi nga xam ne ma laajaat la foofu seen cadre de concertation bi ñu def nga xam ne diggoon nañ fi benn manifestation bu rëy. xam ne benn mbooloo di leen ci topp ñu ne terrorisme bi. loolu léegi kon kay terrorisme daw làkk ñu bëri la loolu loolu la leen ci la lañ cay waxtaan ña ngi koy waxtaan ci suuf nday faat loolu du waxi teleet ña ngi cay waxtaan. te gis nga opposition bi ngay wax nii. Mm-hmm. bu jamono tolloo fi mu toll ni ñuy jëm ci ay élection ku ne mën ngaa waxee nu ne ku ne mën ngaa defee nu ne waaye xam nga ban bi say leer bis biñ toogee yàlla yóbbuñu ci jàmm ak salaam ba ba wal fajiri gis nga bis boobu <laughs> njiitu réew mu ko dul bàyyee xel régime bu bàyyee xel mooy ban bés lu la neex def. ban bés mooy bis ba ñu annoncé carte euh, ya Touba commune sangam nangam résultat ko ko dul bàyyi xel lu la neex def. waaye bis la rek. bis la ci bés yi bis la ci bés yi bis booba. Mm. boobaa da xam ba xam ànd nañ wala ànduñu wala ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu. xam nga président Macky taaye seppi na Djibo Ka yóbbu. seppi si toon dur yóbbu waa appel 221 bu ñu leen wooyee nag. appel 221 duñ ñooñu ngay tudd. Mm. appel 221 dañoo yor mbooloo ci dëkk. def seen i de proximité def appel yow umpale ni ñetti weeri yàlla yoo xam ne appel 221 génn am tournée nationale bu ñu war def bu xam ne dangaa toog nguur gi la jox ngay dundee bu say poste xawee rës faaw nga daw di nday faatu am na terrain de boo xam ne boo ko téyee nguur yoral la ko foo mën a jaar collaborer mhm. calendrier électoral bi ak ni ñu ñàkkee am lu leer ci kañ la dem ci wote ban Euh, jàngat ka ma ciy defal xam nga tontu nga sa bopp ci question bi jiitu woon léegi. recul ak recul démocratique kay mënut a weesu loolu suñu acquis démocratique démo démocratie bu toll na Sénégal. Hmm. ba suñu joonu yàlla tey jii même Macky Sall la moo xam date élection yi loolu lan la lay jox ci sa biir bopp. est-ce que moom sax ak ñi ko wër danañ xalaat opinion internationale bi taxaw di ñu xool nan la ñuy gisee c'est grave. Hmm. c'est grave yéen ngeen ciy dox ba war a mën a leeral mbir yi nit ñi xam fu fu nu war a joué. ah Macky daal dafa ñëw laaj Sénégalais yi réew mi ñu ne ci république nekk ci démocratie ñu wóolu ko dénk ko Sénégal bi population bi wootee dénk ko réew mi bàyyee nañ ko muy liggéey moom nag moo jëloon engagement am gor nag ca wax ja yaakaar naa nag maa waxoon waxeek moom. donte Ablaye Wade mi nga xam ci théâtre képp la ko waxee ba mu ko waxee fa mu ko yóbbu ku ne gis na ko <laughs> yaakaar naa moom moom mm. yaakaar naa xanaa dufut bay du ko ci maa waxoon waxee la ca des nag mooy intelligence ay bëgg a des intelligence bi mooy milliards yi ñu war a def ci référendum wala soit beneen voie bu mu mën parlementaire lu mu mën a doon milliards yooyu ak fi réew mi toll dama yaakaar ne ci intelligence ci nit kuy réfléchir ku ko sobre nag sobre sobriété bi ñuy wax xam nga sobriété nit melut ni mu wax banaan la nim jëf la mel sobriété c'est sobre waaw mais lu sobre dafa sobre sobral ci mandat bi xoolal nu mu gën a simple nga defee ko noonu mu mu simple parlement bi yaa ko wax foofu tamit xupp yi bari woon na fa ci opposition bi te dara amul nga xam nga li gën a grave ñu ngay ñu ngay def budget dara yëpp defal naa yëpp a marché xam nga loolu kañ la xam nga loolu kañ lay xam ngay xam ne dara marché wu hmm. mooy ci kanam tut doo ko xam léegi parce que dafa am ñaari opinion mooy national ak international Sénégal li fi xew lépp ñu koy ñu koy bàyyee xel dama la wax bëgg dem la Genève laa jógee de waxtaan na ma ak ay kilifa ndax fa laa dëkk naa fa jànge naa fa. mais Ablaye Wade mi ngi wax gëmutoon communauté internationale mm-hmm. luñ ko waxaan mu jaar fa ca des. Ablaye Wade. communauté internationale su leen gëmul woon am Ablaye Wade ban communauté internationale mm-hmm. fii dem France. takk homme d'affaires yi Sénégal ba ñu wax ñu la ñu mooy PSE bi. un ñëwagul na bu la leer wax ma ko Abdoulaye Wade lii la xamoon ci tubaab moo tax mu leen fi ñu ko dem Qatar dem Koweït nit da waaye ñëw ci nit ñoo xamante ne ay lobby la ñu nax laa naxaar dugal la ci pot tëj bàyyi la foofu nag yow nga topp ci seen ginnaaw ñu naan la ay écran ak ay FMI ak ñooñu duñ développé meen réew de réew xam-xam a koy yor Abdou Khoudoss la ko wax du dañ léegi communauté internationale boobu tam moom ngeen yaakaar pour mu attale déedéet comité international day ànd ak lii waa dëkk bi dogal ndax ñaara mën na hmm. xam nga Karim Wade moom li ko ciy fekk fekk na ko ci ba pare li Karim li ko ci fekk lu ko gën a garaaw mënatu ko ci fekk mooy juróom benn ati kaso yu teguwul fenn te Sénégal yëpp man ko waat mais du kuñ ko tëjut ñu ko gën doomu di bàyyam kuñ tëjut gën kilifa diine gu baax gu addina wenn yoon yombut wu jëm ci yàlla wu jëm ci addina ci yam baggi nag Karim nag patate c'est une téye lakk boo sànnee mucc. sànnee guñ ko dañu ngi ko téye ba léegi. ah seeni loxo di lakk rek. Mm-hmm. bu xëyee incarné président rek toog palais bi eh, kaso bi fees dell. cinquante personnes nga am droit vingt personnes nga am droit recevoir bu ñu xëyee mille personnes taxaw. kii du googu Rosso geeg Matam fu ne nit jógee fay ñëw rek. ñëw ah, neexul ci xool bi. <laughs> wàllu communauté internationale bi ñu jaaree fan ak wax ci situation sénégalais yi ca bitim réew barki démb boo njaay bi yoon nag gouvernement bi xip fippu na. ndax bi ay nit faatoo ca Algérie ci lakk ñu Sidiki Kaba di jëw bi dénk wàll yoon dafa ni foog ñu leeral ko parce que dara wóoru nit ñi ne ci lakk la ñu faat kon na ñuy commencé fipp pour xool seen anam la ñuy ñu koy jaare bu baax tey naqarlu ñooñu faatu waaye soxna Ndeye Fatou fi ñu war a waxee au niveau international du foofu Ndeye Fatou mu man bul fàtt ne def naa fukki at ak ñeent diggante Italie ak Suisse ak Suède Sénégal bu ñu waxantee dëgg ñaan muy jàmm ji moo ko yor ak ak immigration wala li fi ëpp boog ñoo ko yor kër goo gis am na moodu moodu buy tukki bu yor kër ga Europe barki dem balaa fa jógee dem nag ba seen kër yi amuñu luñ dépensé man jóge naa fii di dem sama argent poste bu ma jëlee Sénégal bi ma demee kër yi may gane yi ci laay joxe Serigne Touba wallahi rancim wama shahidna illa bima alimna bi kunna li xëy na jafe-jafe yooyu sénégalais yi nekkee ci àll bi ñii ñu tëj leen ci kaso yi ci loolu lañ war a gën a bëgg jëm pour xool ban plan ban programme moo leen mën a indiwaat bu ñu ñëwaat Sénégal gi pour ñu bisiwaat parce que sonn nañ ci àll te bàyyiwuñ ko xel ba tey jii ñu ne Sénégal dañuy yaakaar ñu ne Europe te xamatuñu Europe dara amatu fa am na ki sama seen soxna sama ko wax ci màggal gi ne ma bi ma seetloo xaalis yu jóge Sénégal dem Europe ci laa xam ne addina addina tas na te ña nga leen fàtte foofu kenn waxatu ci ñoom xam nga luy problème bi mm-hmm. mooy muy Sidi Kakaba moom nga wax muy Souleymane Jules gis nga ñooñu dañ leen a gis nga nit boo koy fal dara day fekk mu subir ko mu dund ko ñooñu du ñuy immigré Sidi Kakaba mii ngay wax ni du moo nekkoon avocat bu Bourges mhm. moo daan taxaw naan créé yi baaxul te pourtant bi mu ci bëggee tëj Karim da ko ci tëj ba noppi nañ ko réformé mm. xam nga lu garaaw nguur gis nga nguur yàlla nañu yàlla musal ci nguur nguur day gumbaloo nit dangay dem ba duutoo xam looy def ak looy wax dana dal kii nguur yi addina yi dana dal ngir yenn nguur yi yeeg yooyu diine yi ngay gis sax parce que suñu demee ba ma deltuwaat ginnaaw foofu tuuti parce que c'est important lu doon la comité d'organisation bu màggal Touba ñu ni sëñ Muntaxa ñëw na xàmmewuñu ko mais ñi yor comité d'organisation bi lañ jox culture jox ko finance ci ay importance jox ko presse beeg mais est jox nañ ko jumaa ji ndax dooleel nañ xitma bi yor jumaa ji kon am nañ ci une part de responsabilité bu diis Touba nañ xool nam daan doxee démb ku ku mën a wax sa tey te waxoo sa démb. waaye nag dox ànd ak jamono. waaw waaw ànd ak jamono waaye dama ne. Hmm. loo ànd ànd ak jamono amal racine amal baas nañ xool la bu xoolee sa démb rek xam sa tey mbokk yaa ngi fi seex saa ngi fi taalibe yaa ngi fi. Seex Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mii ak bàyyi soldat yi jàmmam yi nga xam ne lu la la ñuy sopp dañ leen ay tanuy kak yi de. bu bu waa waa jàmm. Hmm. soldaari jàmm yi ku leen joxoon tey jii lu wër jumaa jii sëñ Mountakha dana fa ñëw ñuy naat xam nañ ko xamuñu ko c'est-à-dire dafa lay wax nga koy delloo ña ko xam ormay dëkk bi da jël ñi xam ormay dëkk bi xam dëkk bi nga leen di jox dëkk bi loolu nag dafay xew fii di xew fu bari day xew ci Macky Sall meeg waa këram mais soo gisee tam ñuy tere yooyu guérilla la ñuy bañ te nguur it foog mu am nag ay force de l'ordre bien établi mentalité wu sénégalais est-ce que est-ce que yéen yéen man mentalité mi yàlla daa dogal guérilla da cee bokkut mag ñee ko dindi ci sunuy bopp bokkul ci sunu yàlla yàlla bindu ko ci ñun génétiquement sunu xel ak sunu jëm ñun bokkuñu ci yooyu sénégalais est naturellement civilisé yàlla sunu borom mii bind moo bindal moo bind sénégalais ci loolu aw askan pour nga jiite leen da nga xam ni ñuy xalaat mm-hmm. aw askan pour nga jiite leen il faut nga xam nan la ñuy xalaate sénégalais xalaate wuñ foofu Sénégalais da nga leen di nax-naxal ba takk leen ñu waxtaan ak ñoom boo waxtaan ak ñoom am résultat mais boo leen bëggee force rek ñu fipp ñu xaabaabal tuuti dem nag ci wàllu terrorisme bi ak tolluwaayam ak tey état islamique li mu tax euh, jur ko ci biir Europe mu di lëngoo diggante France Angleterre euh, ba ci euh, réew bi nga xam ne mooy Russie mu sut ànd ak ñoom ci yu bëri waaye bi la yoon ñu ngay xàccandoo di doorandoo kon terrorisme am na lu mu favoriser muy déggoo ci diggante réewu Europe yi terrorisme baaxul mhm. te kenn du ko mës rafet rafetlu terrorisme baaxul te xeex ko lu jaadu la xeex bi d'accord nañ ci niñ koy xeexee ci lañ d'accord maanaam niñ koy xeexee mooy dem nga ca Nations Unies Barack Obama toog na ak François Hollande bëgg nga lu leen neex tax ñu ni la lii kat conseil sécurité bi kat dañ koy fal fan lañ première sàngam bi Amérique deux nga ni sa nga ni man Sénégal ma ñun la ne ah nga ni waaw première charte bi xam nga lu mu doon guerre contre le terrorisme te yow terrorisme amul sa réew terroriste yi bu ñuy tal addina bi yow taaluñu la tudduñu la waa sëñ bi loolu leen di yuuxoo ñu ngi Mali de soxna si mm. même bu fekkee am na benn benn yu ñuy soupçonné ci dëkk bi soupçon laa wax de looy dàqee sab sàcc gi seen ko ba noppi ayu léegi ay da jàppal sab sàcc ñoom ñoom ñoo yor armée bi ñoo yor doole ñoom lañu dénk réew mi lu ñu yuuxu duñ ko xeex suuf bu dee dëgg am na leneen lu ci laloon lu ma soupçonné mooy lan nga baaxee ñu ko officiellement de terrorisme la ñu waaye officieusement mm. am na luy daw de loolu lan la waaye xanaa teg la loxo jumaa yi ba kenn dootul xutba ah waaw te may may may may interpellé lancé appel solo la kilifa yi suñu kilifa yi diine yi amul lut ñoom imam yi ñuy tuumal ak otage politique yii ñu téye ci kaso yii benn Karim Wade Toussaint Manga lim fi laay fanaan seet Alassane Sène nii sëñ bi doom nañ bàyyi doomi jàmbur yi ñu tëj ci kaso bi defuñu dara lu ne da koy xool nit mbir ni mu ne danga koy xool ci sa bopp dëgg neexul de ñoom imam Aliou Ndaw nag imam Aliou Ndaw ñoom ñoo ñuy wax ñëpp nañ saytu li ñu leen tegel loolu lu mu doon gis nga imam Aliou Ndaw moomee ma wax la tey lu wér même ku may waxuma la moom sax bëgguma tudd turu kenn di tooñ ndax wóoruma waaye comme mën a doon suñ la jàppoon tey jii ñu ne la yow mi dañ lay tuumaal dara xam nga yoon wu gën a gaaw suñ la jàppee ba teg la loxo ba pare mhm. kilifa yi dinañ solution lañ solution gis nga Cheikh Ahmad Al Maktoum mais ku toog ca wetam wala kilifa goo mën a doon lu néew ci sa bopp bii boo fa boo fa defee boo wasi fa fajar boo xëyee mu génn sa bopp Tuubaa gee ku fa dem kilifa goo njëkk a dajeel ba dajee moom bu la buub lu ëttam ñaari fan ñett dana def sa bopp bi leneen lu terrorisme c'est-à-dire ci ànd ci lañ am man a amee doole waaye munoo am doole ci ak beddiku yoon bii ñu bëgg a man de personnellement gëm naa ne du ko saafara man mhm. ndax France ñu ëpp doole te bi ñu ko bëggee taal taal nañ ko moo ñu ëpp sécurité ëpp ñu kaaraange bi ko bëggee taal taal nañ ko ci façon bi ñu ko taalee mooy taal fii président ba daw ñu taal fee ba muy juróom-ñaari coin yu bokkut pour war leen ni ñu ngi fii ñu ngi fi tudd ñun nañ jël suñuy matuwaay te noppi mais ñu wax ci koom-koomu réew mi fi mu toll nii de waxoon nañ ne taux de croissance bi cinq virgule 6 pour cent la te euh, ci fi mu toll nii yegg nañ ci cinq virgule 4 pour cent loolu de yokkute la. ak 25 euh, fi ñu classé barki dem fi ñu yóbbu vingt cinq pour euh, ñaar fukki. ñaar fukki ñaar fukki réew yi gën a ndóol ci addina bi. dëppoon ak li nga wax pour sax ci sa xel muy xalaat soxna si c'est contradictoire xam nga diggante. maanaam euh, sous développement ak développement dafa am benn pont bu fi dox moom la ñuy wax émergence. Mm. émergence boobu nag Sénégal ñëwoon na ci wax dëgg yàlla bi fi bi fi bi fi Macky Sall di ñëw ak waa kër moom wax dëgg yàlla soo nekkee loolu Sénégal yëpp àtte nañ ko man bokk man daanaka xam nangu dañuy toog seen i poste noonu waaye xam nañ ko bu baax a baax a baax. Mm. léegi bu fekkente ni yow da ngaa dañ laa dañ ñoo yóbbu fii ñu yóbbu barki démb te li gën a garaaw mooy dañuy ne Sénégal bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci addina bi wàññeekuwaat daat ne euh, daat ne ci doing business Sénégal bokk na ci top 10 mais c'est contradictoire ça veut dire que kon Sénégal amatul classe bu ne ci diggante bi c'est-à-dire ñàkk gi moom quatre vingt quatre vingt quinze pour cent la cinq pour cent yi am. Hmm. loolu rek lay firi parce que ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol nekk top ten doing business. lii lay firi lii lay firi ma sant di la gërëm sëñ Abdou Khoudoss Mbacke di coordonnateur mouvement appel 221 doonoon suñu gan ci sorti ma bàyyi la nga tàggatoo waaw di la sant bu baax soxna Ndeye faatu di sant Walfadjri yëpp groupe bi ndax di ko tàmbalee suñu mbokkum daara mi Seydou Lamine Niass ndax tele bi su amul woon addina tukki ndax ñun day doomi soxna yi dañoo segal a segal a segal ba xamatuñu fu ñu jëm tele bi mooy suñu làmmiñ euh, yow nag sa émission bi xamante ni yaa ngi koy def ku ne xam ne Sénégal li mu demee ngay jigéen euh, seere ko ci fulla ak fayda ba yàlla àggale ko fi mu àgg ñuy ñaan yàlla na ko yàlla gën a jëmale kanam te li olof di wax ne la béy daan su dunde ba saxub sikki mën na caa sax ba dee fulla ak fayda ja nga téyewoon li daal nga ànd kook ñi nga àndal rek te la xamal ne sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay sant di gërëm gërëm boog suñu mbokki lay sant di gërëm suñu auditeurs ak téléspectateurs yi doon suivre seen émission gërëm nag euh, sama ñaari càmmeñ yi El Hadj Modou Diouf euh, Papis mbay di sant gërëm oustaz Assane Diouf ci réalisation bi soxna Khadija Niama Mika ñu ngi koy sant di ko gërëm Aline Monteur Ndiaye le jeune yi ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye nag duñu fàtte madame mbay Aminta Mbaye borom tagal bi jekk-jekkal bi yaay Bébé Mouhamed ñu ngi koy sant mbokk yi jàngeen jëf jox leen rendez beneen ay ci beneen émission sortie incha allah. Retrouvez votre émission sortie sur www.walfnet.com, sur YouTube ou Facebook.